salaamaaleykum yéen ñu nuy seetaan Public SN ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di am mbégte ak kontaan ci yéen rawatina yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp ci Instagram Facebook ak Twitter yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag ñu ñëw fii ci Géejawaay fekk si fi benn champion ñu koy wax Thiatou dawde fal vraiment di xale di jàmbaar wane jom wane njàmbaar ci làmb ji euh, xale yu bari ràññee ci nu amoon nag yéen tey ji ànd ak moom waaye xaj na nag ak situation beeg làmb ji jege ji tax na bi nu ñëwee koñam amuñu ko waaye fekk nañ fi ñoo xam ne nii ay xaritam lañ ñi ay magam ay am jàmmam pour ñu jàppale ko ci combat bi am na ñu ne fa fekk ñu nuyonte ak ñoom dugg ñoom ci waxtaan wi nan leen gisee seen mbër kan mooy Thiatou Daouda Fall lan mooy ëllëgam ci làmb euh, lan la ñuy sóoru séentu ci moom ëllëg nu kon ñu waxtaan ak. sëñ maa ngi lay delloo nuyu bi waaw. Assane tey public déplacé wu ñëw ci Géejawaay seet si Thiatou Daouda Fall euh, Thiatou Daouda Fall nag jamono ji ñëpp ràññee ñu commencé koo ràññee ci làmb ji mais yow nan nga gisee sa mbër. waaw public FM maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu ñëpp di nuyu waa waay surtout quartier bi nga ñu fekk muy mboodu 2 ak mboodu 1 yëpp waaw non mbër moom ñun xam nañ ko bu baax mbër moom suñu gaañ la suñu lépp la waaw instant yi moom mi ngi si entraînement yi entraînement yi wóor sax waaw mais est-ce que entraînement yi ngay gis li nga gis nii ci jamono ji mu koy entraîné sa xel dal na ci soo déggee ma dee ko laaj nag mooy làmb ji moom fi ne doolee fi nekk mm-hmm. entraînement yi dal na bu ñu sañoon sa combat bi doon léegi-léegi nii instant yi moom mbër moom pare na fépp sax waaw pare na fépp kay nga teg loolu yow lan moo tax nga wóolu sa mbër parce que Pape Pape Ndoye moo ko njëkk ci làmb ji waaw ah, Pape Ndoye njëkk ko ci làmb ji teewul dañ koy daan incha allah ndax suñ mbër bi ñu ànd ñun xam nañ ko wóolu nañ ko waaw dañ koy daan ci sa lay wala ci ma lay doole wala lan la ci doole ak ci bëre yëpp dañ koy daan incha allah ñaari côté yëpp kay lu mu ñëw dina fekk lu ko fa ëpp incha allah le premier moom ouz mooy bëre mooy daan ñooy supporter ñooy ñibbisi incha allah. Pape lag lagro say magam de. waaw ñun ñun ñun ñun dañoo am Double Less am Balla Gaye am Sa Thiès ñoo ñooy mag te ku leen xamul dégg nga leen. kon da nga jàpp ne Fass ak Géejawaay la. waaw Fass ak Géejawaay la te ñun te ñoo ñoo xamante nañ Fass mosu yab Géejawaay ci dara te du teel a ñuy yab nag waaw le premier incha allah na woon foofu rek dañuy daan ñibbi si. yow jamono dañuy dox naa ko dem ñibbi dox naa ko dugg doxaat génn indaale suñu ndam incha allah. jamono ji boo dee conseiller sa mbër ak physiquement ko gisee nii est-ce que sa koy conseiller ndax moom xam na lépp moom xam na lépp ñun leen lañ koy wax mu ñëw jàpp waa ji daan ko incha allah ndax instant ñun wóol nañ ko waaw. mais moralement physiquement techniquement pare ngeen. pare nañ bi yàgg. billaay a doo dégg bu doon bu ñu añee pare léegi léegi léegi ñu dox nang dem arène ba mu. wax dafa yomb nag. non ñu ñu waxee noonu la ñuy mbër da koy daan. waaye ñaar tali ngeen amal fii mooy géejawaay xut bi digg ñànk tàng bi la nekk. billaahi ñànk tàng bi bu jawee sañ def ko unaata sotti si duutir ah. waaw. mais pour sa mbër euh, jamono ji ak ni ko nit ñi euh, commencé di ko ràññee lan nga koy conseillé loo xam ne ni mu tekki tànkam rek pour mën a àgg fi champion waaw moom ñun mbër amul instant yi leen lu ñu koy conseillé quoi ndax li ma la waxoon rek moom xam na lépp ndax fi la si xut bi xam na lépp yaa ngi dégg ñun leen lañ mën ànd ak moom waaw jour combat ba mu def lépp daan ñu ñibbisi ndax fii gars yi di bëree bërki démb ponkal yi fi ñu nekk nii di bëree grand combat yi ñun foofu lañ teg suñu bët incha allah mais dama gis moom xale la mais vraiment macha allah li baax ci mbër la ko yàlla may muy dafa am coow lan mooy secret ba xale yi bëgg ko parce que moom moo moom moom moo wan loolu moo ñu wan loolu quoi ndax bu ko neexoon parce que ñun ak ñoom ñoo juddandoo ci comme yi fii màggandoo malgré bu mag di am ko mag mais yaroom ak baaxam ak kafan ak bëggant nit moo ko may lii lépp use bu la romboon fii léegi day sëgg ndax dafa am si nit waaw day nuyoo am na jàmm am na salaam quoi indi benn loo xam ne carrément day tax duñ koy xeebee. mais kersa googu bu koy boo ci làmb ji mbaa ñoom ñun ñu koy xool ci futur Balla Gaye 2 ci loolu lañ koy xool. parce que Balla Gaye taxawaay bu mu taxawoon rek ñu moom lañ gis ci moom quoi te boo nit ñoo bu amee xale boo xam ne jàmbaar la da ko war a jàppale bu baax a baax a yaakaar ne moom kon mooy war a nekk relève bi daal waaw moom la kay loolu jarul sa xalaat boo xoolee Balla Gaye 2 xam ne mu ngi ci caat lépp lu nekk ci Balla Gaye 2 mu ngi ci caat non caat moo dàq bëri sa Balla Gaye 2 sa waay moo ko dàq bëri fuuf sax caat moo dàq bëri Balla Gaye fuuf bu ñu jàppante nga xam ko ko ko moo nekk ci yaram bi dafa mën a bëri billaahi macha allah nag yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla defal ko sutura ba bi ñu am ci ndam baax a baax waaw mais Thiam moom lépp lay wër ci mbër ñu fi moom amul dara lu manqué ci moom. lan ngay wax waa waaye pour ñu dolli ko jàppale ko seen bër. non waa Géejawaay moom ñu ngi woo ñëpp ay see yëpp ñu ngi leen woo di woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi parce que combat bi. lamb xam nga par période la rek période bii dañuy jël période bi tamit jël gis nga Pikine temps yi pass ñu meloon affaire day tourné rek bul la rek. lam moom dëggul fenn te incha allah loolu yëpp day jeex day combat bi moom incha allah na ci am ndam bu neexee yàlla suñu borom. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ba léegi ñu ngi fi nga xam ne mooy géejawaay ñëwan ci farandoo ak xarit yeeg àndandoo yi nga xam ne ñooy jàppale Thiatou Daouda Fall Mor Xarma wala xar ma naka la xar ma xam naa nu ñàkk <laughs> président moom mooy président ASC Manko yow nak yakar na yow lañ doon wër ndax ku wax ASC wax bëre wax football wax lépp mais no leen gisé seen mbeur mi nga xamné ni mu ngi wara dugg ci ku toll ni Pape Ndoye ñu ngi leen nuyu den bu baax tay ñaanal suñu mbeur suñu rak suñu xarit di ñaanal ndam euh, te gëm nañ ni inshallah allah dina am ndam nak bu dé entraîner ak yar rek Euh, Thiat Daouda Fall wane na ko ndax fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee ndax mook booy ñoo maase ñoo bokkandoo benn classe kon sunu rakk la waaw nekk sunu xool nag lañ koy wax mooy di ko ñaanal suñu borom may ko jàmm ba premier suñu borom may ko ndam mayaale ndam tamit euh, Jackson ndax ñoom ñaar ñëpp doomu géejawaay lañ ndax buñ sañoon képp ku yeewoo géejawaay di wuti boo ñëw da koy indaale. waaw ñu ngi ñaanal Thiat daado Fall wér ak wérle di ñaanal Pam Doy tamit wér ak wérle di ñaan tamit jours yi yàlla may ñu ndam ñun waa waay mais dama jàpp ne nag xëy na bu ngeen bëggoon ndam du ngeen dugg ci ki nga xam ne mooy Pam Doy est-ce que seetlu ngeen Pam Doy xam ngeen lan moo ne ci ginnaawam noo làmb la Thiat daado Fall amu kenn ku muy ragal buñ jugee si Pam Doy di ngeen ub seen gémmeñ ne lan lay wutiwaat si kee ndax doomi mbër buñ koy wax Thiat Daouda Fall a tax mën naa la woon foto boo xam ne ba muy xale la bu amee sept ans si lay yem mu ngemb nga xam ni kon doomi mbër la photo baa ngi sama téléphone. Pape Ndoye doomi mbër la rakku mbër. waaw mais mais kii tamit doomi mbër rakki mbër ndax boo nee Daouda Fall jeexal na. mais confiance bi foo ko teg. non si entraînement am rek entraînement am ñun bi ñu gis entraînement am bi ñu gis boo xam ne ñu dañuy yendoog moom di ko gis bu dugalee estati ju gis ko xam ni kon suñu rakk mi ngi si mi ngi si dara ndax bu dul leen entraîné wul duñ taxaw fii di wax de ndax defaluñu dara waaw mais entraînement am moo ko may mu essi fii di ko ñaanal tamit ndam te gëm naa ne bu neexee suñu borom nañ am ndam grand waaw. ku bëgg ndam da ngay ànd say bokk est-ce que waa Guédiawaye taxaw nañ pour jàppale non boo déggee ñu ne futur Balla Gaye xam ne loolu waa Guédiawaye ñoo ko tuddee. Balla Gaye 2 nga wax de. futur Balla Gaye 2 mooy caat daaw dafaal. mais est-ce que loolu pare nañ pour def ko Balla Gaye noo non déglu ma la Balla Gaye lu mu doon Guédiawaye la de. waa Balla Gaye 2 li mu doon fii la manko. manko waaw ah, li mu doon Balla Gaye li mu doon manko gii la. moom mi tegi ci manko gi la bokk déggoo lu ma la wax fi la juddoo Balla Gaye 2 fi la juddoo arrêt du balees kii juddoo koñ bii boo jàddee nii fa la juddoo non am nañ bu baax a baax a baax a baax si caat Daouda ak Balla Gaye waa ratax digganteem ak ak rakk la waaw du ne sax ak papa la ndax Balla Gaye gis nga ko korok si combat moom ak Kulifay euh, 2 mhm. ñoom ñaar ñu tous ndax Balla Gaye 2 moo taxaw wax ko ne futur Balla gay 2 mi ngi nii kon am na loom gis si moom ba pare booy bi tamit jox ko cër ne ko yaay sama idole Balla gay 2 booy bu bëgg dara nangul bu jiite la ndax yàlla mooy tuddu jiit mais képp kuy takk ngemb géejawaay Balla Gaye 2 tax ngay takk ngemb non dégguma la mooy mooy biir li nga am si biir terrain ku mu doo dugal waaw te booy bi nag ñëw na taxawaay booy royal bi nu mu tudd ato voilà kon nga xam ne nag affaire yi jeex na bu neexee suñu borom en tant que mag ak rak sama côté man ak caat Daouda Fall mu doon suma rak jox ma cër man tey ma jox ko cër ndax minute bu ne dama koy woo mu jël ma bokk tamit si staff tamit fan si club Thiat Daouda Fall ba léegi léegi rek ba ngeen dégg ki ko jiite mi ma doon woo léegi léegi di ñaan tamit képp kuy yeewoo géejawaay di woo 53 ASC yi nekk Géejawaay waxuma maa ko kase de 53 ASC yi ndax boo duggee sanc bi drapeau Thiat Daada Fall ma ngi fa boo duggee jàppoo Sam drapeau mi ngi fa boo duggee manko drapo mi ngi fa boo duggee euh, bépp ASC bu nekk Géejawaay Thiatu Daada Fall drapeau mi ngi fa solu benn couleur bu dul couleur Géejawaay zone bleue moom lay wane kon doomu Géejawaay la dañuy ñaan yàlla le premier ak le deux le 3 ñu ànd feete ko muy ñaari victoire si kaw famille Ndoyeen. si kaw famille Ndoyeen muy kan. Lagros ak Lagros ak Pam Ndoy Lagros kan la war a bëreel. Jackson. waa léet mais mais waa Géejawaay lañ bëgg kon. déggu lu ma la wax xam waa Géejawaay lañ bëgg le 3 ñu feetewoo ñaari victoire yëpp incha allah dañ koy def bu daanee le premier bu dimanche le 2 ñu defaat beneen masse ànd ñun ñëpp. dem soutenir Jackson. waaye li ngay wax foo ko teg sa lay wala ma lay. teguma ko fenn lu si ànd non déggul ma la boo demee Fass tamit loolu lañ lay wax boo demee Fass ko fa interview tamit loolu la lay wax mais man tamit li nga xam ne moom la waa Géejawaay man dégguma la wax muusi Géejawaay bu doon xeexi jéeg laa du mu feneen man muusi Géejawaay laa takk drapeau am man Géejawaay laa juddoo Géejawaay laa yaroo Géejawaay laa màngee kon man képp kuy doomu Géejawaay lu muy wuti wuti si kaw suuf moom laa àndal. kon léegi mm, da ngay mm, lan ngay wax fan si Balla Gaye international yi nga xam ne yëpp yaa ngi leen di gis te am ngeen booy bi yaakaar ci mu remplacer bala Gaye. am nga Balla gay 2 démb dañ ko tuddee tur bu tur xam ne ñu ngi doog a wax te moom dina ko wax Gaynde Baara. Gaynde Baara waaw le de Gaynde Baara retour de Gaynde Baara waaw. yàlla di nga dégg mu wax ko feneen ñu ñoo ko tuddee démb oh, démb si heure bii le retour de Gaynde Baara. foofu sax dinaa ci dugg yow Balla Gaye 2 Tapha Tine yow combat boobu noo ko gisee yéen waa Guédiawaye dama laaj ndax da ngeen di xaru wala bi ngeen di jël combat bi da ngeen a gistoon Tapha Tine wala lan la wala yéen Balla Gaye ngeen bëgg daal mu mu pare. non Tapha Tine na gën a entraîné. maanaam wallaahi lan mooy entraînement. xam nga ni koroog dimanche ñoom ñaar bu ñu jàkkaarloo bu at bi newoon prix Balla Gaye duma ko. dimanche bi passé yow foo nekkoon dama lay laaj ci sa ci télé nga newoon wala ci da ngaa demoon ci stade. non xam ne doomi gaynde la Balla Gaye 2 bu soxlaa ku soxla da ngay ñàkk xanaa moom mu bañ a soxla non déggoo lu mën a wax ku dul tafaatin tafaatin billahi wallahi taala grand la ko wax fi te dinaa la ko waxaat tafaatin ñemewul Balla Gaye man yow dama lay man li ma jaaxal mooy gisoo tafaatin laa la wax xanaa déggoo lu ma la wax tafaatin bàyyi la sol teg si teg si lan la sol bàyyi laatu njaxas teg si non déggoo lu ma la wax grand Tapha Tine ni mu toolu billaay wallaay xam Balla Gaye de kan la war a bëreel mbër mi naan pare na. kon liñ ne wax naan waa Géejawaay ñu ngi ñaan Aziz pour mu dàqaleen combat bi ba Balla jekk yow. loolu waxi waxi booy tiktokeur yi rek la ñoom cokk ñoo ko doon wax Balla Gaye de xam nga ne du taxaw fii naan ay Aziz delloo avance bi Balla Gaye de avance bi mu xas ba lekk moom ay mbokkam dem Europe entraîné ñëw baa ko wëndeelu. billahi wallahi taalahi yoo ne Balla Gaye de mooy làmb waa ñu jàpp ne Balla Gaye ci dóor mu daanu la combat ba di jeexee yow looy xalaat. du jeexee si dóor mu daanu songante la dóor naq ko daan ko. Balla Balla Gaye 2 la wax day jàpp Tapha Tine daan ko Balla Gaye 2 ba ñuy teg première pierre arena bi dañ ko woon a woo mu jël tureelam tibu ciment teg mooy làmb. mais yow en tant que supporteru Balla Gaye yow ñaan nga yàlla Balla Gaye Tapha Tine xeex. gannaaw man Balla Gaye 2 rek laa supporter sama àdduna. mais bëgg nga nu xeex. billahi wallahi taalaay nañ xeex. Tapha kan kan la fi dóor waaw yàq kanamu Elton yàq kanamu Bombardier ba mu ñëw si Balla lu mu ko def ni la ko def juróomi baaraam juróomi baaraam la ko def mu daw nit ñi di yëkkati seen supporter naan nii moomu naan nii grand ñun bala Gaye dañu ko topp mbapat fii barki alxuraanu karim dañu ko topp mbapat arrêt du balees topp ko ba léegi ñun kenn mënuñoo wax si bala gay dara bala gay de terrain manko bii boo demee nga ne ko waa manko laa doon defal interview. mais nag bawal bawal yi taxaw nañ ci ginnaaw Tapha Tine léegi de. non bawal bawal amoon muy kii bi daan barki dem Mor Kankan waaw pare nañ Tapha Tine. waaw gis nañ Mor Kankan mu lancé appel Tapha Tine pour mu gën a yokk entraînement yi nee naa ko yow sax naa dëgg. mbokk bawal la c'est normal Mor Kankan bu taxawoon ñaana Balla Gaye de ma mere ko nit ku ne fa nga far da nga koy wane moo dafa war a faral Tapha Tine ndax ñoom ñaara bokk bawal ñoo bokk. fi ñu ne kon ñoom ñaara war a far ñun Balla Gaye 2 lañ am te duñ ko conseillé jour làmb ja de Balla Gaye 2 kenn wartu koo conseillé waaw li ñu koy conseillé Balla Gaye xam ni ko war a wax sango lii mu sangoo lii jeex na arbitre na prix moom. bëgg naa nga may nu ci Sa Thiès noo jàngate combat bi. non combat boobu xam nga tamit du ma si wax <laughs> mooy ko ni man. Euh, non man combat boobu dama xaw a mere Sa Thiès xam nga si ban côté laa ko mën. bu la ko kenn dindiloo mais defet nag bu ñëwee lépp non dafa wàcc yoonam li nga doon def di daan def ko attaquant kenn du ko xaarloo da nga koy mu dem lim mën mu defi ko. kon da nga jàpp ne kon Sa ñu ko conseillé ñoo ko daane. non ñi ko conseillé ñoo ko daane. mais nag Eumeu Sène bu Sa Thiès naa woon bu ñëwee du baax de. déggoo lu ma la wax Eumeu Sène da ngay jubaarloo moom rek Sa Thiès attaquant nga gaaw nga dóoral fekk ko mu laaw nga sëgg. japp ci ndigli daan ko mu jeex. la koy conseiller ci kanamam. dama koy conseiller ci kanamam doomi mbeur la tamit rakki mbeur la nak tolof tolof yi magam tol tolon na ci mais bam mu defaroo dafa ñew Sa ci xalé la amul lu muy perte ci làmb 89 la ñoko mak témer jun yoon ba muy ñëw di ñaan tons mi tons mi juróom sunu kanam kon ñoko mak wa ñun no wa mi ñew di fay ci bor na xamuta ñom mom ñi ñi ngi deggante ak ñom te ñi ngi gisante ak ñom déggoo mala ma wax man Sa Thiès dama koy conseil grand xam nga moy ko lan lambang si kanam mom modlo dafa teg la ñaari boy Pikine dan len yakalu len dara sen carrière ñom ñi ngi avancer waaw Sa Thiès tam nga entraînement mën nga entraîner nga dem entraîner faram ñu ci kanam non faram du lamb. da nga ragal wala. non du cadre ragal grand man faram dan dan Bombardier ngeen du lamb. xam nga senegal lañ wara analyser léegi ah ay bu ki daano nañ ko jox ki non non lamb Sa Thiès munoo daan ñaata mbër nga daan yu mag ah am benn mbër mu mag mu daan la ñu bëgg laa jox kan Sa Thiès jamono ji ku ma koy jox naxaar Modou Lo Eumeu Sène naxaar Modou Lo Siteu naxaar Modou Lo ndax Modou moo ne du bëreeg Balla Gaye 2 du bëreeg la de du bëreeg Gris Bordeaux kon kan lay bëreel ta bëreeg Franc na ñoo bokk écurie naxaar Sa grand loolu mooy làmb Balla Gaye 2 dootu bëre teg Modou Lo ndax bala Gaye 2 tey bu ko bu Modou Lo daanee Siteu Balla Gaye kuliyaal yi day jël Siteu ndax ñoom ñaar waxoon nañ ko mu daan tamit day jël Siteu Sa Thiès na xaari Modou Lo loolu laa koy digal. looy daw ci Franc. noo daw ma si Franc dara ndax xamu tax man ma ne daw ma si Franc dara Bombardier mi daan moo gën a neex a daan Bombardier mi rek la diyoo ñoom ñaar ki indi si stade bi stade am bi nga indi fa sa warga suukar indi sa ñetti butéel sa ñetti kilo mburu ah combine sa làmb ah rëg-rëg daan la ñun ñun kooku noonu nag yi grand grand tamit nag yéen yéen yéen xam yéen yéen yéen yéen ci boppam yéen a war a wax ak rëg-rëg rëg-rëg si boppam ngeen war a waxal rëg-rëg daanu fi mbër rëg-rëg kan la fi daan Gris 2 moo gën a neex a daan si làmb ji diggulu ma la wax man billahi wallahi taalaay rëg-rëg gisaguma bi mu am combat soog barki alxuraanu karim bari na wax trop nag bari na wax trop trop trop ba pare benn munul waxin rëg-rëg bari na wax munul waxin rëg bu demee ba xale yu ndaw yi di ko tontu si net bi ki daan roi des arènes deux fois ki yoo xam doon na roi des arènes deux fois nga daan ko war a am benn caractère nekk si média yi ratatatatatat wax fi wax fee rëg-rëg nan noppi nan noppi te dem bëre jéeg Franc loolu mooy lamb ne dem bëre jéeg Franc lamb ji yéene ko classé rëg-rëg Franc Sa Thiès na xaari Modou Lo Balla Gaye xaari Siteu lamb ji jeex na. jërëjëf ndax ñii duñ sàlli doomi Double Less yi duñ sàlli mukk si làmb billaahi wallaahi taalaay duñ sàlli si làmb doomi Double Less yi buñ demoon ba ba waa CNG ne leen suba la ñuy jël seen licence si ngoon sax nañ leen tëgal combat duñ sàlli si làmb ñoom ñoo yor làmb nañ leen nangul bala Gaye 2 ñaata victoire lam bala Balla Gaye 2 six défaites te si defe yëpp li ko daan ñu xam ne kan ak kan la Eumeu la ko daan te Eumeu Sène mi si onze défaites mi si neuf défaites Bombardier moo ko daan deux fois Boy Niang benn yoon Issa Pouye benn yoon jeex na loolay defatu Balla Gaye 2 de l'âge de vingt cinq ans nga jël roi des arènes am ci Tapha Tine daan ko Bombardier moo la daan te li ko Bombardier daana ñun xam nañ ko dafa feebaroon nanguta entraîné Balla gay 2 mu entraîné dëgg rek grand barki Alxuraanu Karim duy arena ba mu fees dell ba Balla gay 2 bàq wëndeelu tent bob bi billahi wallahi taalaahi laa la géñal soko sim nekk si ginnaaw grand Taphatine du daan kenn Taphatine a ngi leen di xaar Taphatine dafa juum contre Eumeu Sène du daan kenn jërëjëf dafa ndewa Taphatine na na na jàppale rakkam Dieng Ndiaye Tine ok merci jërëjëf du nuyu ñëpp surtout waa Géejawaay tamit di nuyu waa Géejawaay bu baax a baax a baax a baax ne leen tamit ñu gën a soutenir booy bi mhm. gën a jàppale booy bi ndax làmb fi mu toll nii mhm. nekkatul palmarès mhm. làmb léegi mbooloo la mbooloo la na ñëpp ñëw jàppale booy bi ñu dem ci njekk ndax booy bi tamit nag mooy bëre doo dégg agression dañ ko wax booy bi na ko promoteur yi ñëw sees si fay ko xaalis bu bari booy bi day duy stade bi ma caat daaw dafaal man ñuy jaay bolo gi si laa bokk billaahi wallaahi taalaay daal tolloog huit bolok jaay nañ ko te teewul kenn jëndul Jackson mi tamit li muy dugal si mbooloo tamit nañ koy xool di leen di leen jàppale di leen fay waaw Jackson fii buy génn doo gis benn agression. lan ngay wax ñi agressé. ñi agressé xam nañu wax mooy noo yàkkamti seen wërsëg noo yàkkamti seen wërsëg nañ dem liggéeyi nañ dem liggéeyi te bàyyi ñi ñu dogaale di nangu seeni alal mbër ma ngay yàqal. ndax paa buy dem nga nangu alalam ñu ne kii kan la àndal ñu ne mbër me nga ñaanal ko yàlla day daanu nañ dimbali seen mbër yu ñuy àndal sangu ba set sol lu rafet dem si supporter sa mbër mu daan nga jël sa taxi ñëw sa koñ jibile boo xëyee mu ànd ak sa mbër mu dem doxi mbokk nuyu ku ne mbër yi tamit buñ daanee ba pare nañ dugg si quartier bi nuyu ñëpp ndax ñëpp a sonn seen i combat ñu ta seetaan télé ñu ngi koy déglu rajo ñenn ñi dem ci kaw tale bi di toog di seetaan ñu jàppale tamit gën a metti bu mbër ma daane ay mbokkam bu daanee buñ ko daanee ñi ko jege nañu dimbali ñun tamit nag sonn nañ trop waaw di ñaan tamit ñaan yi nga xam ne ñoom lañ fi am muy caatu Daado Fall ak Jackson di ñaan le premier le deux yal nañ ci am dam bu baax a baax a baax a baax Pathé Fall tamit sunu rakk la di Daado Fall numéro deux di ko ñaanal moom tamit combat waaw di ñaanal moom tamit combat bu baax yi ñu may ko combat di féliciter tamit Youssou Ndour di encourager Lat Dior moom tamit doomi waay la di ko encourager moom tamit ci defetam bi xam ni na defaruwaat làmb ak ci kanamam waaw seen télé bi seen site bi yàlla na dem ba dooni tele waa di nuyu ñëpp waaw di nuyu waa Manko tamit sama waa ay sëy man Manko laa am maa ngi nuyu waa Manko bu baax a baax a baax a baax a baax waa jàppoo saam tamit seen drapeau gis nañ ko waaw ñoom euh, Dikam ñoom Sey Baas waaw gis nañ tamit soutenir ñoom Boy Ndiaye soutenir bu ñu soutenir laay Sey euh, bu ñu soutenir Thiat Daada Fall ñoom tamit ñu ngi leen di ñaan tamit luñ gën a def rek mu gën a baax nañ ñëpp yokk ñaan ñaani rek ñu ñaanal sunu doom yàlla may ko ndam ok merci waay. ba léegi ñu ngi fi nga xam ne mooy géejawaay ñëwoon ci farandoo ak xarit yeeg àndandoo yi nga xam ne ñooy jàppale Thiatou Daouda Fall. Moor Xarma wala Seex Xarma naka la Seex Xarma xam naa nu ñàkk <laughs> président moom mooy président ASC Manko yow nag yaakaar naa yow lañu doon wër ndax ku wax ASC wax bëre wax football wax lépp mais noo leen seen mbër mi nga xam ne nii mu ngi war a dugg ci ku tol ni Pape Ndoye waaw ñu ngi leen nuyu den siyaare bu baax tey ñaanal sunu mbër suñu rakk sunu xarit di ko ñaanal ndam Euh, te gëm nañ ni incha allah dina am ndam ndax bu dee entraîné ak yar rek euh, Thiatou Daouda Fall wane na ko ndax fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee ndax mook booy ñoo maase ñoo bokkandoo benn classe kon sunu rakk la waaw li nekk sunu xool nag lañ koy wax mooy di ko ñaanal suñu borom may ko jàmm ba premier suñu borom may ko ndam mayaa ndam tamit euh, Jackson ndax ñoom ñaar ñëpp doomu waay lañ ndax bu sañoon képp ku yeewoo waay di wuti boo ñëw da nga koy indaale waaw ñu ngi ñaanal Thiat Daouda Fall wér ak le di ñaanal Pam Doy tamit wér ak le di ñaan tamit jours yi yàlla me ñu ndam ñun waa géejawaay mais dama jàpp ne nag xëy na bu ngeen bëggoon ndam du ngeen dugg ci ki nga xam ne mooy Pam Doy est-ce que seetlu ngeen Pam Doy xam ngeen lan moo ne ci ginnaawam noo làmb la Thiat Daouda Fall amul kenn ku muy ragal buñ jugee si Pam Doy di ngeen ub seen gémmeñ ne lan lay wutiwaat si kee ndax doomi mbër buñ koy wax caatu Daouda Fall la tax mën naa la woon photo boo xam ne ba muy xale la bu amee sept ans si lay yem ngemb nga xam ne kon doomi mbër la photo baa ngi sama téléphone. Pape Ndoye la rakku mbër. waaw mais mais kii tamit doomi mbër rakki mbër ndax boo ne Daouda Fall jeexal na. mais confiance bi foo si entraînement am rek entraînement am ñun ñu gis entraînement bi ñu gis boo xam ne ñun dañuy moom di ko gis bu dugalee esthétique ju gis ko. xam ni kon suñu rakk mi ngi si ngi si dara ndax bu dul leen entraîné wul duñ taxaw fii di wax de ndax defaluñu dara waaw mais entraînement am moo ko may mu essi fii di ko ñaanal tamit ndam te gëm naa ne bu neexee suñu borom nañ am ndam grand waaw. ku bëgg ndam ngay ànd ak say bokk est-ce que waa Guédiawaye taxaw nañ pour jàppale. non boo déggee ñu ne futur Balla Gaye 2 xam ne loolu waa Guédiawaye ñoo ko tuddee. Balla Gaye 2 nga wax de. futur Balla Gaye mooy caat daaw dafaal. mais est-ce que pare nañ pour def ko Balla Gaye non dégglu ma la. Balla mu doon géej waay la de. waaw Balla li mu doon fii la manko waaw ah, li mu doon Balla Gaye 2 li mu doon manko gii la. te moom mi ci manko gii la ma wax fi la juddoo Balla Gaye 2 fi la juddoo arrêté du balees kii juddoo koñ bii boo jàddee nii fa la juddoo. non am nañ yaakaar bu baax a baax a baax a baax si caat Daouda Fall. digganteem ak Balla Gaye. waa ratax digganteem ak ak rakk la waaw du ma ne mag a doom ak papa ndax bala gay 2 gis nga ko korok si combat moom ak euh, Coly Faye 2 mm-hmm. ñoom ñaar ñu ànd tous mm-hmm. ndax bala gay 2 moo taxaw wax ko ne futur Balla Gaye 2 mi ngi nii mm. kon am na lu gis si moom ba pare booy bi tamit jox ko cër ne ko yaay sama idole bala gay 2 booy bu bëgg dara mm-hmm. nangul bu jiite la ndax yàlla mooy tudd njiit mais képp kuy takk ngemb géejawaay Balla Gaye 2 tax ngay takk ngemb non dégguma la mooy mooy biir li si biir terrain kum paasul doo dugal waaw te booy bi nag ñëw na taxawaay taxawaayu booy reyal bi nu mu tudd ato voilà kon nga xam ne ndaw affaire yi jeex na bu neexee suñu borom en tant que mag ak rak sama côté man ak Thiat Daouda Fall mu doon suma rak jox ma cër man tey ma jox ko cër ndax minute bu ne dama koy woo mu jël ma bokk tamit si staff tamit fan si club Thiat Daouda Fall ba léegi léegi rek ba dégg kii ko jiite mi ngi ma doon woo léegi léegi di ñaan tamit képp kuy yeewoo géejawaay di woo 53 ASC yi nekk géejawaay waxuma man koo kase de 53 ASC yi ndax boo duggee sanc bi drapo Thiat Daouda Fall ma boo duggee jàppoo saam drapo mi ngi fa boo duggee manko drapo mi ngi fa boo duggee euh, bépp ASC bu nekk géejawaay Thiatou Daouda Fall drapeau mi ngi fa solo benn couleur bu du dul couleur géejawaay zone bleue moom lay wane kon doomu géej waay la dañuy ñaan yàlla le premier ak le deux le trois ñu ànd feete ko muy ñaari victoire yi si kaw famille Ndoyeen. si kaw famille muy kan. Lagros ak Lagros ak Pam Ndoy Lagros kan la war a bëreel. Jackson. waa léegi Lagros mais mais waa géejawaay lan lañ bëgg kon. déggu lu ma wax xam nga waa Guédiawaye lañ bëgg le 3 ñu féetewoo ñaari victoire yëpp incha allah dañ koy def bu ñu daanee la premier bu dimanche le 2 ñu defaat beneen masse ànd ñun ñëpp dem soutenir Jackson. waaye li nga wax foo ko teg sa lay wala ma lay. ko fenn lu si ànd non déggu lu ma boo demee Fass tamit loolu lañ lay wax boo demee Fass ko fa interview tamit loolu la lay wax mais man tamit li nga xam ne moom la waa Guédiawaye man déggu ma la wax muusu Guédiawaye bu doon xeexi jéeg laa du mu feneen. man muusi géejawaay laa takk drapeau am man waay laa juddoo waay laa yaroo waay laa màngee kon man képp kuy doomu waay lu muy wuti wuti si kaw suuf moom laa àndal. kon léegi mm, da ngay mm, lan ngay wax fan si Balla Gaye international yi nga xam ne yëpp yaa ngi leen di gis te am ngeen booy bi yaakaar ci mu remplacer Balla Gaye. xam nga Balla gay 2 dem dañ ko tuddee tur bu boo xam ne ñu ngi koy doog ko wax te moom dina ko wax Gaynde Baara. Gaynde Baara Gaynde Baara. le retour de Gaynde Baara waaw bu soobee yàlla di nga dégg mu wax ko feneen ñu ñoo ko tuddee démb démb si heure bii le retour de Gaynde Baara. waaw foofu sax dinaa ci dugg ak yow Balla Gaye de Tafatine yow combat boobu noo ko gisee yéen waa Géejawaay dama laaj ndax da ngeen di xaru wala bi ngeen di jël combat bi da ngeen a gis toon Tafatine wala lan la wala yéen Balla Gaye ngeen bëgg daal mu mu pare. non Tafatine na gën a entraîné. maanaam wallaahi lan mooy entraînement xam nga ni korok dimanche ñoom ñaar buñu jàkkaarloo bu arbitre ne woon prix Balla Gaye duma ko dimanche bi passé yow foo nekkoon dama lay la ci set ci télé nga ne woon wala ci da ngaa demoon ci stade non damaa xam ne doomi gaynde la Balla Gaye de bu soxlaa ku soxla da ngay ñàkk xanaa moom mu bañ a soxla non déggoo lu mën a wax ku dul tafaatin tafaatin billahi wallahi taala grand la ko wax fi te dinaa la ko waxaat tafaatin ñemewul Balla Gaye mana yow dama lay man lima jaxal moy mooy gisoo tafaatin laa la wax xana déggoo lu ma wax la sol taxi taxi lan baylat la sol baylaatu njaxas teg si blouson non lu wax grand tafatin ni ko ci toolu billaay xam Balla Gaye de kan la wara beurel mbeur min nan naan na. kon liñ ne wax wa waa way ñu ngi ñaan Aziz pour mu dakalen combat bi ba Balla jek yow. lolu waxi waxi boy tiktokteur yi rek la ñom cokk ñoko doon wax Balla de xam nga ni du taxaw fi nan ay Aziz avance bi Balla Gaye 2 avance bi mu xas ba lekk moom ak ay mbokkam dem Europe entraîné ñëw ba ko wëndeelu billahi wallahi taalahi yoo xam ne Balla Gaye 2 grand mooy làmb. waa ñu jàpp ne Balla Gaye ci dóor mu daanu la combat boobu di jeexee yow looy xalaat. du jeexee si dóor mu daanu songante la dóor naq ko daan ko Balla Balla Gaye 2 la wax day jàpp Tapha Tine daanko ko Balla Gaye ba ñuy teg première pierre arena bi dañ ko woon a woo mu jël tureelam tibu ciment teg mooy làmb. yow en tant que supporter Balla Gaye yow ñaan nga yàlla Balla Gaye ak Tapha Tine xeex garaa dara supporter sama àdduna mais bëgg nga nu xeex billahi wallahi taalaay nañ xeex Tapha Tine kanakan kan la fi Elton la fi dóor waaw yàq kanamu Elton yak kanamu Bombardier ba mu ñëwee si Balla Gaye de lu mu ko def nii la ko def juróomi baaraam juróomi baaraam la ko def mu daw nit ñi di yëkkati seen supporter naan nii moomu naan nii grand ñun Balla ko mbapat barki alxuraanu karim bi ñu ko topp mbapat arrêt du balees topp ko ba léegi ñun kenn mënuñoo wax si Balla Gaye dara Balla Gaye de terrain manko bii boo demee nga ne ko waa manko laa doon defal interview. mais nag bawal bawal yi taxaw nañ ci ginnaaw Tapha Tine léegi de. non bawal amoon muy kii booy bi daan barki dem Mor Kankan waaw pare nañ Tapha Tine. waaw gis nañ Mor Kankan mu lancé appel Tapha Tine pour mu gën yokk entraînement nee naa ko yow sax naa da nga. mbokk bawal bawam la. c'est normal Mor Kang Kang bu taxawoon ñaana Balla Gaye 2 ma mere ko nit ku ne nga far da nga koy wane moo dafa war a faral tafaatin ndax ñoom ñaara bokk bawal ñoo bokk fiñ ne kon ñoom ñaara war a far ñun Balla Gaye 2 lañ am te duñ ko conseillé jour làmb jële Balla Gaye 2 kenn wartu koo conseillé waaw ñu koy conseillé Balla xam ni ko war a wax sango li mu sangoo lii jeex na arbitre na prix moom bëgg naa nga may nu ci Sa Thiès Eumeu Sène noo jàngate combat bi non combat boo xam tama du si wax <laughs> mooy ko ni man. Euh, non man combat boobu dama xaw a mere Sa Thiès xam nga si man côté laa ko nit ki li nga mën bu la ko kenn dindiloo mais defet nag bu ñëwee lépp non dafa wàcc yoonam li nga doon def di daan def ko attaquant kenn du ko xaarloo da nga koy bàyyi mu dem li mu mën mu defi ko. nga ne kon Sa Thiès ñi ko conseillé ñoo ko daane. non ñi ko conseillé ñoo ko daane. mais nag Eumeu Sène bu Sa Thiès bu ñëwee du baax de. déggoo lu ma la wax Eumeu Sène da ngay jubaarloog moom rek Sa attaquant nga gaaw nga dóoral fekk si ko mu laaw nga sëgg jàpp si ndigli daan ko mu jeex. loo koy conseillé ci kanamam. li koy conseillé ci kanamam doomi mbër la tamit rakki mbër la ndax tolof tolof yi magam toll tolloon na si mais moom dafa dafa ñëw Sa Thiès la amul lu muy perte 89 la ñoko mak mag jun yoon ba mi ñew di ñaan tons mi tons mi juroom sunu kanam kon ñoko mak wa ñun no wa mi ñew di fay ci bor na xamu tax ñoom moom ñi ngi ñu ngi te ñi ngi gisante ak ñom la man Sa lama la makoy conseil grand xam nga moy ko lan hmm. lambang si kanam mom, modlo dafa teg la ñaari pikin Pikine dan len yàqalu len dara sen carrière ñom ñi ngi avancer waaw Sa Thiès tam nga entraînement mën nga entraîner nga dem entraîner ji. Franc mi tek ci kanam nag. non Franc du lamb da nga ragal wala. non du cadre ragal. grand man xoolal. Franc daan Bombardier du lamb xam nga Sénégal lañ war analyser léegi ah ay bu ki daano nañu ko jox ki mais loolu la non non lamb warta doxé nonu Sa Thiès mëno daan ñaata mbeur nga daan yu mag ah am benn mbeur mu mag mu daan lañu bëgg la jox Franc. koko jox. kan. Sa Thiès jamono ji ji kuma koy jox. naxaar Modou Lo Eumeu Sène naxaar Modou na xaar Modou Lo Siteu ndax Modou Lo moo du bëreeg bala Gaye du bëreeg Lac de Guiers du bëreeg Gris Bordeaux kon kan lay bëreel mënta bëreeg Franc na ñoo bokk écurie na xaar Sa Thiès grand loolu mooy làmb bala Gaye 2 dootu bëree teg Modou Lo ndax bala Gaye tey bu ko bu Modou Lo daanee Siteu Balla Gaye kuliyaal yi day jël Siteu ndax ñoo ñaar waxoon nañ ko mu daan tamit day jël Siteu Sa Thiès na xaari Modou Lo loolu laa koy digal. looy daw ci fara non daw ma ci Franc dara na xamu tax man mané ne daw ma si Franc dara bomba mi min dal mo gëna neex daan bomba Bombardier mi rek le dio ñom ñaar ki indi ci estade bi estade am estade bi nga indi fa sa warga sugar indi sa ñetti budget sa ñetti kilo mburu ah combine sa lamb ah rek rek daan la ñun ñun koku non nak yi grand grand tamit nak yeen yeen yeen xam yeen yeen yeen yeen ci boppam yeen wara wax rek rek rek rek ci si ngeen wara waxal rek rek daanu fi wax de rek kan la fi daan Gris 2 moo gën a neex a daan si làmb ji diggulu ma la wax man billaahi wallaahi taalaay rëg-rëg gisaguma mu am combat soog barki alxuraanu karim bari na wax trop nag bari na wax trop trop trop ba pare benn munul waxin rëg-rëg bari na wax munul waxin rëg-rëg bu demee ba xale yu ndaw yi di ko tontu si net bi ki daan roi des arènes deux fois ki yoo xam doon na roi des arènes deux nga daan ko wara am benn caractère nekk si média yi ratatatatatat wax fii wax fee rëg-rëg nan noppi nan noppi te dem bëre jéeg Franc loolu mooy lamb ne dem bëre jéeg Franc lamb ji yéene ko classé rëg-rëg Franc Sa Thiès na xaari Modou Lo Balla Gaye de xaari lamb ji jeex na jërëjëf ndax ñii duñ salli doomi dubalees yi duñ sàlli mukk si lamb billaahi wallaahi taala duñ sàlli si lamb doomi dubalees yi buñ demoon ba ba waa CNG ne leen suba la ñuy jël seen licence si ngoon sax dañ leen tëgal combat duñ saali si làmb ñoom ñoo yor làmb nañ leen ko nangul Balla Gaye 2 ñaata victoire la am Balla Gaye 2 la am te six défaites yëpp li ko daan ñu ne kan ak kan la Eumeu Sène deux fois la ko te Eumeu Sène mi ngi si onze défaites mi ngi si neuf défaites Bombardier moo ko daan deux fois Boy Niang benn yoon Issa ben yoon jeex na loolay defatu Balla Gaye de l'âge de vingt cinq ans nga jël roi des arènes am ci tafaatin daan ko bombardier moo la daan te li ko daan daane ñun xam nañ ko dafa feebaroon nanguta entraîné Balla Gaye de mu entraîné dëgg rek grand barki Alxuraanu Karim duy arena ba mu dell ba Balla Gaye 2 bàq wëndeelu tent bopp bi billahi wallahi taalahi laa la géñal so ko sim nekk si ginnaaw grand tafatin du daan kenn tafatin a ngi leen di xaar tafatin dafa juum contre Eumeu Sène du daan kenn jërëjëf dafa ndéwa tafatin na dem na jàppale rakkam jee njaay tiin ok merci jërëjëf du nuyu ñëpp surtout waa géejawaay tamit du nuyu waa géejawaay bu baax a baax a baax a baax ne leen tamit ñu gën a soutenir booy bi gën a jàppale booy bi ndax làmb fi mu toll nii nekkatul palmarès làmb léegi mbooloo la mbooloo la na ñëpp ñëw jàppale booy bi ñu dem si njekk ndax booy bi tamit nag mooy bëre doo dégg agression dañ ko wax booy bii na ko promoteur yi ñëw seet ci fay ko xaalis bu bari booy bi day duy stade bi man caat Daouda Fall man ñuy jaay bolo gi si laa bokk billaahi wallaahi taalaay daal tolloog huit bolok jaay nañ ko te teewul kenn jëndul Jason mi tamit li muy dugal si mbooloo tamit nañ koy xool di leen di leen jàppale di leen fay waaw Jackson fi buy génn do gis ben agression. lan ngay wax ñi agressé. ñi agressé xam nañu wax mo yakam ci sen wërseuk no yakam ci sen wërseuk nañ dem liggéeyi nañ dem liggéeyi ta bay ñi ñu dogaale di nangu seeni alal mbeur ma ngay yakal nak pa buy dem nga nangu alalam ñu ne ki kan la andal ñu ne mbeur me nga ñaanal ko yalla day daanu. nañ dimbali sen mbeur yi ñuy andal sangu ba set solo rafet dem esat supporter sa mbeur mu daan nga jël sa taxi ñew sa koñ jibilé boo xëyee mu ànd sa mbër mu dem doxi mbokk nuyu ku ne mbëri tamit buñ daanee ba pare nañ dugg si quartier bi nuyu ñëpp ndax ñëpp a seeni seen i combat ñu mën ta seetaan télé ñu ngi koy déglu rajo ñenn ñi dem ci kaw tale bi di toog di seetaan nañ ñu jàppale tamit ànd mbër moo gën a metti bu mbër ma daanee ay mbokkam bu daanee buñ ko daanee ñi ko jege nañu dimbali ñun tamit nag sonn nañ trop waaw di ñaan tamit ñaan ñi nga xam ne ñoom lañ fi am muy caatu Daado Fall ak Jackson di ñaan le premier ak le deux yal nañ ci am ndam bu baax a baax a baax a baax Pathé Fall tamit sunu rakk la di Daado Fall numéro deux di ko ñaanal moom tamit combat waaw di ñaanal moom tamit combat bu baax ñu may ko combat di féliciter tamit Youssou Ndour di encourager la joor moom tamit doomi géej waay la di ko encourager moom tamit ci defetam bi xam ni na defaruwaat làmb si ci kanamam waaw seen télé bi seen site bi yàlla na dem ba dooni tele waa di nuyu ñëpp waaw di nuyu waa Manko tamit sama waa ay sëy man Manko laa am maa ngi nuyu waa Manko bu baax a baax a baax a baax a baax waa jàppoo saam tamit seen drapeau gis nañ ko waaw ñoom euh, dikam ñoom sëy baas waaw gis nañ tamit soutenir ñoom Boy Ndiaye soutenir euh, bu ñu soutenir laay sëy bu ñu soutenir caat Daada Fall ñoom tamit ñu ngi leen di ñaan tamit luñ gën a def mu gën baax nañ ñëpp yokk ñaan yi rek ñu ñaanal sunu doom yàlla may ko ndam ok merci waay. waa mbokk yi ba léegi nii ñoo ngi ci koñu euh, naka laati sax waa mbokk yi seetaan public SN ba léegi rek ñu ngi fii ci euh, nga xam ne mooy koñu caatu Daouda Fall fekk fi ay am di jàmm ay xaritam jàmbaar maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu wér. caatu Daouda Fall jamono ji mu mel ni dafa mel ni nit ñu commencé nañ ko ràññee ci làmb ji mais caatu Daouda Fall tey lan la ba ngeen jox ko ki nga xam ne mooy Pape ah asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu waa seen bi ah, di leen jaajëfal tamit ci lii nii euh, xëy na nag mbër tey da ngeen ko gisul parce que dafa nekk si préparation combat bi waaw moo tax xam nga rek ni mu demee mais Ousmane Diop ñun ñun sax genre cat daal dafa lu ko Ousmane Diop la ñuy wax lu bari parce que suñu moroom la suñu xarit la te lim ñu wan moo tax amaana ñu ñuy dund ak moom lii genre pam Ndoye nekkul koo xamante ne dañ ko teg suñ bët ci làmb parce que man xalaatuma woon ni sax dinañ bëreeg Pape Ndoye parce que ñu muy doon xool ñeneen ñu ko ëpp. ñeneen ñëpp Pape Ndoye xanaa da ngeen a bëgg a gaare carrière bi. non duñ ko gaare parce que dañoo xam ki ñu yor xam maanaam gis li muy daj ak li muy sacrifice yi muy def. yen ci jamono yu ñeme ngeen a jël ko Pape Ndoye. quoi mais père bul xalaat loolu loolu amuñu sax ma dem te ñëw xalaat xalaatuñ ci loolu Pape Ndoye saa ni jeex na ba pare leneen la ñuy xalaat parce que bu bu dee Pape Ndoye la ñuy xalaat kon jarul ñu jëm si kaw loolu ci loo ko teg entraînement wala mystique. ci liggéey liggéey parce que ñun ay sportif lañ avant tout moom mbër la ñun ay footballeur lañ te sport moom boo koy def entraînement la ñuy wax joueur day entraîné mbër day entraîné te ñun de entraînement bi ñuy wan moo tax ñu gëm ni ku dul Pape Ndoye sax war na ko mën a daan loolu la ko quoi mais du leneen. waaye mystique mystique deuxième la. entraînement yi moom salle la gën a favoriser wala contact. day xëy dem salle kon du ci école bi. ñaar yëpp lay boole. kon yow da dëggal ñuy wax ne moom moo war a nekk relève Balla Gaye 2 rek lañ gis ci moom. ah si boo moom bu bu nga gis ko bu bëree nga gis ko même ci ko ci côté bépp nga da ngay gis ni Balla Gaye 2 na ko noonu. comme ni Balla Gaye gëmee woon moom boppam est-ce ah, parce que buy bëree da gis ni fit bi ak jàmbaar bi mi ci moom te amul benn ragal bu muy. mais est-ce tey waa Géej waaye pare nañ pour ni ñu jàppalee Balla ñu jàppalee ko noonu ah bien sûr parce que boo xoolee boo xoolee te tey jii nii comme mbër yi comme mbër yi fi nekk yëpp bari na mais moom genre ni mu mel ak booy moo tax gaa yi bëgg ko. waaw loolu laa bëgg na wax sax nag dama ñu gis ne xale yi dañu ko bëgg lool lan mooy digganteem ak xale yi. non liy xale yi mooy maanaam respect bi leen war rek ak cër parce que nit moom mën nga mën nga luye ay sées mais mënoo luye ay nit mën nga mën nga mën nga defal nit dara li maanaam ci nit yi li mu lay toppee yow yaa koy liggéey sa diggante ak moom te moom daf ji ci xale yi di leen wan yëg-yëg ak amour moom tamit bu xew xewlee booy dañ koy wan loolu. ci carrière am boo amee loo koy conseillé pour li jëm ci kanamam lan la. ah mooy mu maytu lépp loo xamante ni si ne da koy yàqal lu ci mel ni jigéen ak alal ndax ku ci yàqule moo la yàqal genre dama koy wax pour mu gën a dëxëñu gën a téye boppam xam ni defagul dara xamagul amagul dara ci làmb li fi ay ñoom Modou Lo yi toll nii ak Balla Gaye ay Tapha Tine mën na am lu ko raw ndax mi ngi mi ngi ci avenir mi ngi ci loxoom. day bàyyi maanaam dañ koy tere rek def liñ ko si sant bu ko defee dina àgg fi mu jëm fi mu bëgg a jëm. du ma génn géejawaay mais dama lay laaj tuuti ci diggante Tafatine ak Balla Gaye yéen waa géejawaay lan moo leen naqari seen àddina ba ngeen dugg ci Tafatine. non dara naqari wuñu dara naqari wuñ de Tafatine ñoo ko daanoon 2013. dañ ko Tafatine 2013 Tafatine 2024 moom ku ne xam ne du benn. ah mais du benn waaw loolu xëy na yéen yéen yéen yéen amateurs yi yéen a koy gis rek. gis ah mais loolu loolu dara loolu loolu loolu master bu mu jël rek mais affaire yi bëre la de du doole de bëre la ci xam-xam te ñun xam nañ Balla Gaye ci ci bëre rek Tapha Tine jaaxalu ko Tapha Tine amul technique donte yàlla bind bind na ko comme noonu mais amul technique bu mu mën a. mais est ce que yaa est xalaat Balla Gaye encaissé coup Tapha Tine. non Balla Gaye encaissé coup Tapha Tine mais loolu genre mën na am ci làmb ji mais tamit est ce que a ngi xalaat mu encaissé coup Balla Gaye parce mu ñu wax naan Balla Gaye na ko dóor 1200 1200 ku moom mu dóor ko benn loolu ay waxu kasaw-kasaw la rek mais xam nga ni Balla Gaye mu bàyyi ay yitteem dem ba incept liggéey ji ñëwaat nga taxaw naan ko dóor ma 1200 ku nañ ci dem. kon yow bokk ak fan Balla Gaye yi nga xam dañuy ñaan ñu reporter combat non jamais de la vie man Balla Gaye bi gis keroog athlète la te Balla man moo ma gënal Balla Gaye bu ñëw indi poids di di direeku waaw man looloo ma gënal ni mu mel noonu moo ma ma neex. seen Sa am defet boo ko doon jàngat tey lan nga yaakaar na moo ko daan. ah Sa ñii ñi ngi naan comme consigne bi mu bëree waru ko woon bëree te man tamit damay gis ni loolu tamit dëgg la atu la ci quoi warul woon bëree noonu mais tamit waroon na war na mën a gën a jàng xeex man ci li ma koy wax en tant que petit frère quoi war na mën a jàng xeex xam nga parce que Europe baa ngi fi am na moyen mën na dem jàngi xeex ñëwaat parce que keroog bu ma doon xeex normalement moog Eumeu Sène warul du demee noonu. fekk du demee noonu lamb jooju noonu mais ñi ngi koy ñaanal bu amatee yeneen combat tamit yàlla may ko ndam. wax géejewaay euh, supporters yi pour ñu jàppale euh, ah, leen wu rek ñi fi am combat ñëpp même Jackson am na fi combat tamit ñu ñu jàppale leen bu baax xam nga ñi leen war a taxawu ci côté financier ñu taxawu leen ñu leen war a taxawu ci côté mystique ñu taxawu leen ñaani waaw boo yi tamit maa ngi leen wax ñu mobiliser wu bi yëpp géejewaay bi yëpp amul. non agression yi moom ku ci nekk ak sa sa vie adduna moom xam nga ku ci nekk ak li ngay dund genre ñun personnellement ñun ñi nii bu ñuy bu ñuy dem esat loolu yóbbuwuñu dañuy sangu ba set xëy lu neex dem esat seetaan ñibbisi mais am na ñoo xamante ne loolu yëkkatiwu leen am na ñoo xam ne sax dëkkuñu géej waaye di agressé bu bu sa waay bu sa waay di ji dañuy dañuy xëy jóge ji ay fu ne ban ñëw pour reega bu mbër bi di dem ñu ànd ak ñoom am lu ñuy jaaxaale te ci mbër bi lañ ci dara mbër bi lañ koy teg kon loolu ñun ñii ni sax ñoo koy mën a xeex am na benn combat boo xamante ñun ñoo doon mujjee jàppanteeg boo yoo xamante ni dëkkuñu fi ñëw si koñ bi ànd ak bi mbër bi daanee ñu ñëw dugg si biir koñ bi di def naka sudul noonu ñun ñoo mu ñëw wëlbatiku di xeex ak ñoom ci pharmacie bi fii waaw te te xamuñu leen mais dañuy ñëw fii comme si que ñu ni caatu daaw dafa lañu àndal te ànduñu ak moom mais xam nga loolu tamit mënoo ci dara ñu ngi delloo jaajëfal bu baax jërëjëf waaw yéen ñi seetaan ba léegi rek ñoo ngi ci géejawaay ko ñu caatu daaw dafal àndandoo ak ay xaritam ak am di jàmmam di waxtaan ak ñoom ci préparation combat bi di ñëw digganteem ak Pape Ndoye euh, capitaine maa ngi lay nuyu. maa ngi lay siyaar maa ngi siyaar ak loolu làmb maa ngi nuyu aduna di siyaar ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di leen nuyu waale di leen jox seen waay waaw di ne siyaar waale mafia caat daara faal bi yëpp jël capitaine bi teg ko sama loxo maa ngi leen di siyaar gaa yëpp waaw noonu la demee. mais capitaine dañoo gis ku mel ni Pape Ndoye ñëpp xam ko ci lamb ji écrit bu mag nekk sa ginnaaw mooy rakk la mais da ngeen a xamul Pape Ndoye bi ngeen siy dugg wala yéen seen mbër lan la. Pape Ndoye ñun buñ ko ne xamul woon duñ dugg si moom. est leen. yàkkamtewuñ Pape Ndoye ñu xam ko moo tax ñun ñu dugg si moom ñun tey jii nii balaa ñoo jël dara dañoo am ay ni fo keroog caat am na benn interview bu mu ko doon waxee. Mm-hmm. Pape Ndoye amaana suñu borom moom moo ñu boole nii rek mais maanaam nekkul du moom moo ñuy téye ñun amaana xam. Euh, moom moo ñuy tee ñun euh, na yoon PAM doy du ñu téye ñun suñu yoon dañuy ñëw faxas ko jàll dem suñu yoon taxu ñoo sax jóg waaw instant ni PAM doy taxu ñoo sax jóg. da ngeen a ñëw ñëw faxas ko jàll nga wax de. dañ koy ñëw faxas. a gëj a gis PAM doy da ngeen koo desee xam yéen. moom PAM doy xam nañ ko bu baax PAM doy yow lay waxal xam nañ la bu baax te boo jàppee ni caat xamu la yaa ngi nax sa bopp te bu bisu combat ba di nga xam ne caat du la yàq de da lay saccagé yow Pape Ndoye xaw ma nag ba xam di nga dégg interview bi xaw ma ba xam doo ko dégg mais boo demee boo tëddee nelaw nga xam ne bu baax yow am nga combat ay ñoom Lac Rose ay ñu topp sa staff bu yeboo nga xamal leen bu baax yow ak doomu géejawaay bi yéenay bëre gaynde géejawaay yow ak gaynde géejawaay yéenay bëre waaw loolu laa bëgg nga xam ko saa boo tëddee rek yow dee ko xalaat waaw ah, noonu la demee. mais est-ce que yow li ngay teg nii am ngeen doole ju leen may sañ-sañ bob. ba xam ñun am nañ doole gu ñu may sañ-sañ bob. non ku xool chat, ku chat. cat xam ne ñun mbër nañ am amuñu mbërantaan amuñu mbëru kacaw kacaw. caat ak entraînement mom macha allah loolu moom ñun bu ñu tëddee ñun booyami ñun fan si club bi ñun booy yim dëkkal koñ caat wax. mu la teel a tëdd waaw nan laa ko mën a waxee sax teel a tëdd teel a yeewu teel a tëdd teel a yeewu bu yeewoo day dem entraîné ji ngoon maa bi day dem tërëni entraînement moom suñ buñ tëddee ñun dañuy nelaw amuñu lu ciy xalaat caat ak entraînement rek rek rek rek rek ñun buñ tëddee ñun dañuy nelaw ñun amuñu maanaam lenn loo xamante ni dañ koy xalaat si ay wàllu euh, na entraînement non non duñ ko xalaat. mais est-ce que jàpp nga ne géejawaay yëpp dinañ jog japp nek ci ginnaaw. non instant bi ni chat mom wa instant bi mom chat franchement parler chatu caatu way kessé chatu na aduna la tay ji ni bo xolé fii nii gis nga li ay mbeur yu magi di duggal ay ñom Eumeu sen ay ñoom Ama balé ay ñom na boñaay ay ñom modlo lolu chat da koy duggal esat waaw loolu lay laaj ni lan moy secret wu caat parce que yagu fi mais gis na ne xalé dañ ko bëgg trop. parce que loolu non mom moñu ko war loolu noonu tey jii nii moom moo ko liggéey parce que tey jii nii amaana nit mën nga def lu nekk tey jii loo jox nit loolu la nit di jox caat deretam moo ko sonal caat deretam géejawaay moo ko sonal picc sax bu doon ngénte caat bu caat ne bu ko yegee day dem bu munul abu laaf dem dina jéem a fexe bu wut ay laaf pour naaw dem fekki ji ko diggante caat ak mbër yi nekk géejawaay waaw loolu moom jàmm ak salaam rek parce que caat bu xewlee dañuy gis ay ñoom Lajoor moom doomu ndayam la ay ñoom dogaar pël ay yenn mbër yi su limé limee damay joom sa bu xewlé moom gaay dañuy ñew tak si rep rep rep nen si mbat sa bu xewlé moom gaay yi dañ koy taxaw aidé ko mu gagné combat am waaw sa bu xewlé moom gaay dañ ci mooy loolu duñ nga may dara ba fekk ñuy atteindre sunu euh, no objectif waaw lu may tëjee waaw xana rek may wax gars yi mafia caat bi mafia caat bi mafia bayal gewal jaañ bi mafia manko bi mafia aliya seeg bi fi ñu jaayee café fii nii may wax gars yi nañ wàcc combat bi parce que combat bi nekkul combat caat kese caat nekkul caatu ma paate nekkul caatu ma demba caatu àdduna la wëngal këpp euh, profiro na waale di ñaanaale maraay nañ ci sànni ñaan ñu yor kurus woote wuñ wàllu de ñun tàppetuñ loolu mais tey jii nii c'est normal amaana ñu yëgal leen ñu wax leen amaana parce que nit kenn du ko xeebal bésam waaw te tey jii nii yow li nga toogee nii tey jii nii yow mën nga gis kenn ñaanlu ko ñun ñaanuñu wàllu mais dañoo ne pour suñu combat na ci gars yi xama rek mooy loolu waaw noonu la demee nag ñuy wax na ko ñëpp waaj waaw te xam ne nag bu caat jógee yi fi gars yi ne ko nii di bandi bandul ñoom ñëpp dañuy xaar géejawaay seela bimbam caat daada faal seela bimbam pam doy bu la cat jaabee du la yàqate de dalay sakaase xaw ma xoola sama message bi nanga ko bu la caat jaabee boo tëddee nag na nga neloo de mais bu la caat jaabee dalay sakaase waaw noonu la demee nag waaw jërëjëf